gërëm naa président daal la ci li nga xam ne nii tey jii taxawaay bu am solo bi mu def bëgg jël réew mi yëpp ñu ànd liggéey pour xeex li nga xam ne nii mooy jàngoro ji lëmbee àdduna bi lëmbee Sénégal ñëpp xam ne tey jii lu toll ci ñaari milliards yi doomu aadama ci àdduna bi ñu ngi leen téye ci seen kër ndaxte feebar bi fu nekk lay dugg ku nekk la mën a gaañ te amul seetlu. ci kilifa ak keneen loo xam ne ni tey jii bu dalee Sénégal mën a gaañ Sénégal ñun Sénégal yépp ci war a ànd juboo bokk ndey bokk baay dañuy wax ne tey jii bu Sénégal soxla kenn bëggatul dara ñëpp ñoo war a ànd boole suñu doole doole ji nag boole ko mooy def li président def tey jii ñu nit ñu nit ñu génne fii def ko ak askan bi ñu àndal ak Sénégal yépp pour que ñun ñëpp ñu ànd xeex li nga xam ne nii mooy jàngoro ji jàngoro ji nag xeex ko mooy lii ci autorité sanitaire yi wax gouvernement bi ko àdduna bi wax ko mooy jël ay matuwaay parce que nag bu ñu jëlee suñu ay matuwaay fagaru yàlla mën a def feebar bi bañ a daan Sénégal nañu fexe donc ba daan feebar bi te buñ ci jógee Sénégal gën a am doole Sénégal gën a yëkkatiku ndaxte Sénégal rek moo am solo. xeex Sénégal rek moo am solo kon nag ne Sénégal yëpp ànd bokk ndey bokk bàyyi ñu ànd liggéey pour xeex bi jóge biir réew mi ba pare jóge si ci àdduna bi yëpp pour jàmm mën a si ci askan bi pour que ñu mën a liggéey suñu réew ci anam ñu gën a rafet yëkkati rek euh, sa parti am na ndaw yu ko euh, teewal ci pencum ndaw réew mi njiit réew mi démb wax na ko am na projet de loi bi nga xam ni fas na ko yéenee jébbal assemblée nationale ban taxawaay la sa ndaw yooyu war a mën a am ci projet de loi bi nga xam ne njiitu réew mi fas yéene ko euh, yegg indi foofu ne ci pencum ndaw réew mi di assemblée nationale. waaw maa ngi lay remercier di wax ne xam nga lii président bëgg moom la Sénégal yëpp bëgg te je crois que bu ngeen seetloo sax ci début jàngoro ba léegi. bureau politique grand parti lu bëri wax na ko ci ba ñaan nañ président sax mu décréter état d'urgence sanitaire waxoon nañ aussi ne nañu fexe ba euh, doole réew mi yëpp jël ko teg ci loxo président de la république pour que moom euh, mu fexe ba feebar bi gën a euh, néew Sénégal bu fekkente ne aussi dugg na fi ba pare. loolu moo tax tey jii loi d'habilitation bi nga xam ne nii dañ ko war a voter assemblée nationale bu neexee yàlla du ma jógee fii grand parti parti démocrate la. Eh, dinaa woote réunion rapidement te réunion bi sax xam nga mënu nekk réunion comme réunion habituelle mais dinaa consulter les membres du bureau politique pour que li nga xam ne ni moom le président bëgg mooy assemblée voté ko loi d'habilitation bu pour que grand parti aussi vote ko bu neexee rek yoon tamit te gëm naa ne instance parti bi dinañ ci d'accord mais au-delà de sax eh, dafa fekk ne grand parti am nañu ay experts yoo xam ne nii ku mel ni docteur Georges Diouf bi nga xam ne nii spécialiste de des maladies tropicales et moom ak ñi mu àndal ñoom ñëpp dinañ ñaan président de la République mu dugal leen ci commité bi nga xam ne nii mi ngi xeex tey jii jàngoro ji ci réew mi. ba pare aussi xale yu grand parti yi dañu lancé initiative bu nga xam ne nii dañu bëgg jël xale yu ndaw réew mi yëpp ñu bokk seen boole seen doole ànd ak madame la ministre de la jeunesse pour que ñoom ñu ànd xeex li nga xam ne mooy jàngoro ji pour que xale yi réew mi taxaw bokk ndey bokk bàyyi taxaw boobu ëllëgee lépp lu nga xam ne nii loolu ñu soxla. ci mobilisation jeunesse bi bu ko personnel médical bi soxlaa ñu mën a taxaw ci gox-goxaan yépp jàppalante ba xeex bi mën a am solo ba yàlla def ba li nga xam ne moom ni Sénégal soxla mooy xeex coronavirus ba mu jógee ci réew mi yàlla mañ ñu ci ndam kon nag mën nañ am njort bu rafet ne bu neexee yàlla eh, eh, député grand parti yi nga xam ne nii parce que xam ngeen ne grand parti am na ñetti député assemblée nationale et bu neexee yàlla eh, loi bi nga xam ne moom la président soxla et daañu ko voté ndaxte voté ko mooy défendre Sénégal voté ko mooy jàppale Sénégal voté ko mooy sauver Sénégal ndaxte bu ñu sauvéwul Sénégal ci jamono ji bu ëllëgee histoire bi dinañu ko laaj ak future génération dinañu ko laaj loolu moo tax mbooloo mooy doole yàlla yàlla saxal mbooloo ci biir réew mi ba Sénégal am ndam ci li nga xam ne nii mooy épreuve bi ñuy dund tey ci coronavirus.